Amadou Wuri Diallo bi amoon grâce am na lancé nañ ko un mandat d'arrêt international ça veut dire que donc juge yi aussi ñu ngi ci seen logique pour que effectivement mbir mi dox yoon parce que boo xoolee euh, gravité bi mu am donc jàpp naa ne ne aussi ñun ñëpp ñoo ko war a loolu dafay wane ni li yoon en tout cas man démb laa gën a am jàngat ci ni ci wàllu yoon ak ci wàllu exécutif président gracier na mais amul amul lu mu lu mu lu mu lu mu def ci jugement bi parce que dem nañu lancer mandat d'arrêt international mais loolu moo war a dox je pense que bu demee rek bu bu bu amee tàqalikoo rek léegi affaire bi jaar yoon quoi. di leen di gën a euh, soññ yéen également les organes de presse ci am ngeen rôle bu am solo bu ngeen ci war a dox pour que population bi ban di jeter wu vers la destruction c'est-à-dire que ñu nekk bañ a nekk population boo xam ne dañuy dem di lor seen bopp euh, garab bi. du loo indil faj sa xaalis dem jural la yeneen wopp yeneen i jàngoro je pense que loolu mun na ñàkk et loolu vraiment Afrique toujours moom mooy ci payer le lourd tribut bilan bi gën a métti.